بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريقا ràññale mooy gënale diggante nit ñi seenu ràññiku ak seenu gën gënante ci xam-xam rek la aju ku ci gën a bari xam-xam boo ci gën a yëkkatiku daraja te moo ci gën a ragal yàlla ndax suñu borom tabaaraka wa taala mi ngi wax ci at alquran ne yàlla dana yëkkati ñi gëm ak ñi am xam-xam ay darajaat ay darajaat yoo xam ne ñoom ñoo koy ëppalee ñi amul ñi amul xam-xam nee na ñi ma ragal dëgg-dëgg mooy ñi am xam-xam ñoo ma ragal dëgg-dëgg doy na ci xam-xam rek ñu xam tedd nga jim tedd ne moom mooy méccam yónent yi mboolem yónent yi yàlla yónni woon seen mécc yi ñoom ñëpp li leen taxoon a jóg mooy jàng ak jàngale huwa alladi baasa fi l yonent bi eh, sunu borom tabaaraka wa taala nee na maa yónni yonent bi tànn ko ci yéen muy nit ni yéen waaye ma yónni ko ci yéen yi nga xam ne daawu leen jàng daawu leen bind ngir mu dikk jàngal leen yar leen da leen di jàng day dikk jàngal leen waaye day dikk yar leen sellal seen bakkan xamal leen lu ngeen xamutoon wa in kaanoo min qablu fi fi dalal mubiin moom yonent bi sa alayhi wasallam mu mu mu dajale mbooteem bépp li ko taxoon a jóg ba mu ba mu feeñee ci àdduna bañ ko yónnee ba ba mu demee nee na li ko taxoon a jóg lépp mooy nekk ab jàngalekat innama bon istu muallima nekk ab jàngalekat rek loolu rek mooy mboolem mission bi nga xam ne amoon na ko nee foofu la ko tënk ñoom olom ñoom ñi topp ci moom ci yonent ba mu fi jógee it olama yi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi nañ ci moom loolu tedd tedd nga jooju donn nañ ko ci moom muy yor méccam jàng ak jàngale loolu nag moo tax ñoom borom xam-xam it bu yonent yi wéyee ñu kawe ñu dul ñoom ñoom yonent yi nañ ñu ñoom ñoom borom xam-xam yi kawe nañ ñu dul ñoom ndax amul benn daraja bu bu ëpp daraja yonent amul benn daraja bu ëpp daraja yonent te amul benn teraanga bu kawe donn yonent boobu nga xam ne moo gën ci nit ñi kon kon ku donn yonent loolu rëy na ci rëy na lool tedd na na lool te loo ko donnee mooy xam-xam rek nga ko donnee te yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne yonent yi duñ leen donnoo dërëm duñ leen donnoo diinaar du leen donnoo jenn alal waaye li ñeen di donnee mooy xam-xam kon ku ko jël ku jël xam-xam rek jël nga lépp wala nga jël nga jël nga cër bu cër bu rëy rëy jël ko moom Cheikhul Khadim nag radiyallahu taala mooy suñu yaakaar nag moom dafa tegoon xam-xam fu rëy rëy rëy yëkkati ko lool teg ko teg borom xam-xam yi fu rëy rëy rëy rëy waaye sax daan ko jiital ci lépp lu muy def xam-xam da cay jiital waaye daa daan ko jiital ci yoonam wi nga xam ne moom la xàll wooñu ci ñun ñëpp muy almuridiya lam ko fondement mooy xam-xam donc bu njëkk ba mooy xam-xam ci la ko ci la ko fondement mi ngi ñuy wax ne na ngeen taqoo xam-xam ak jëfe ko ndax xam-xam balaa am njëriñ dañ koy jëfe waaye na ngeen am da ngeen sàkku xam-xam te jëfe ko te ànd ak ay teggin ñetti ponk yooyu mooy ponk yoonu murid xam-xam jëfe la nga xam am ay teggin ñetti yooyu rek mooy ponk yoonu murid yi nga xam ne ku ci sax rek mel na ni yaa ngi ci biir waaye ku ci manqué benn rek mel na ni manqué nga benn boobee daal it xam-xam moo gën jëf jëf li muy baax baax xam-xam a ko gën te mooy fondement ba mooy xam-xam mooy fondement jëf waaye njariñ la nag mooy jëf xam-xam mooy fondement bi waaye njariñ li mooy mooy mooy mooy jëfee la la nga xam daane yéen taalibe yëpp bu leen def dara te jiitalu leen xam-xam wa fi'lu shay'in qabla an ya ya'lama ma xakama fihi mutlaqan rabu sama mimma ala mukallafin qad xaruma qaddim ala ibadatin taalluma nee na def dara dara rek la wax dara lu mu mën a doon nga def ko te jiitaloo xam-xam ca loola nee na loolu dafa araam ci yéen dafa araam ci yéen ngeen jëfandikoo dara te jiitalu leen xam-xam ca ca loolee doon na doon jàppee boppam sax ne saytaane doon na ko bëgg a jàpp ba muy xalaata bàyyi jàng ak jàngale kon jàng ak jàngale am na solo trop Sëñ Tuubaa mu dem ba xalaat ne lii kat mi ngi koy bëgg a bàyyi te saytaane ko ko teg nee na bàyyi xalaat googu rek xalaat waxuma def ko de mosu koo def waaye bàyyi gi ko bàyyi rek bàyyi xalaat gi mu ko xalaat rek nee na saytaane la wa kittu lil am daahi wal itrai wax gi ma nit ñi wax naan yawa yawa yawa yawa nee na dem naa ba mujj ma bëgg bàyyi jàng ak jàngale waaw jàng ak jàngale te loolu mooy sama métier waaye xalaat nga ma ko xalaat rek pexem seytaane la moo xam ne du ma ko duma ko duma ko du ma du ma ko topp mukk waaye waxaat na it ne bokk na ci pexem seytaane mi muy jéem te du ko man mooy dox di dox murid yi ak ak ak ak ak xam-xam dox diggante murid yi ak xam-xam seytaane lu mu man dana ko def ngir dox diggante murid yi ak xam ndax bu dogee doxee diggante murid yi ak xam-xam rek dox na seen diggante ak yoon yàlla ndax yoon yàlla wi sa Sëriñ Tuubaa xàll xam-xamee jéego bu njëkk ba kon bu seytaanee doxee sa diggante xam-xam boobu mel na ni dox na sa diggante ak yoon woowu nga xam ne mooy yoonu xam-xam nee na seytaane na nu muy nu muy nu muy soppee nit ñi ci xam-xam mais day wut ay nit yoo xam ne dañ naan nit ñi xam-xam amul solo ak taalibe am solo xam-xam amul solo ak taalibe am solo waaye boo ne ak taalibe mooy lan mooy xam-xam moo ci jëkk ak taalibe dëgg-dëgg moo am solo taalibe doo nga am solo waaye lu jëkk ci ak taalibe mooy xam-xam jéego bu ci jëkk mooy xam-xam bala ngaa def dara da ngay xam-xam am xam-xam ba doot moom sëriñ bi doon nag ñaan saa bu muy ñaan ci biir xasida yi rawatina ci mm, ma Matlabul Fawzayni ñaan na ci lu bari yàlla def dëkkam bii di Tuubaa nga xam ne moom la gën a fonk ci yépp nee na ko yàlla def dëkku xam-xam na ko yàlla def jëfee liñ xam waaye na ko yàlla def jëkkub jikko xam ak jëf ak jikko nee na yàlla ko yàlla def Tuubaa gi muy dëkk boo xam ne loolu dafay tasaaroo daanam nay nay nay dëkk boo xam ne dañ fiy déggee ay masala dëkk boo xam ne dañ fiy déggee ay masala di di fi njàng njàng mu mag ak njàng mu ndaw bay yii njàng mu ndaw dugg na ci biir gone yi jàng waaye njàng mu mag dugg na ci biir gone yi jàng ca université ba yor ay ay ay ay ay ay daraja yu mag waaye loolu nag bi mu ko defee moom wax ko nekkoon ca bi mu fi jógee nag ci saayir mboolem ay xalifaam yi nga xam ne ñoo ko fi wutu ak ay doomam yi nga xam ne ñoo ko wut ñoo ñoo ñoo ñëwoon gannaawam ñoom ñëpp dañoo taxaw ci loolu tem taxawal ay jàngukaay alxuraan yu bari ci alxuraan Touba mooy mooy dëkk bi gën a bari ay jàngukaayu alxuraan ci ci Sénégal taxawal ay jàngukaayu xam-xam yu cosaan yi nga xam ne mag ñëpp ci lañ jaar muy xam-xamu cosaan yi muy jàngu majalis ñu taxawal ko ci dëkk bi yëpp ñëpp di ko jàng waaye ñu taxawal ay ay ay école ndax xam nañu jamono moo ko indi bu ñemee ca leer rek mën naa am ñu rëcc waaye ñu taxawal ay école yu bari Cheikh Mamadou Moursala Cheikh Mamadou euh, euh, Cheikh euh, si Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñoom ñëpp ñu taxawal ay école ci réew mi ak ci bitim réew lépp ñu taxawal ko ngir jàngal nit ñi ngir soññ nit ñi sëñ Mouhamadou Mountakha moom nag bi mu ñëwee mu xool loolu lépp ñu defoon mu mottalee ko nag ci taxawal projet bu rëy bii nga xam ne moom la taxawal ci Touba mooy mu jàmmawu Cheikh al Khadim li tarbiyatu wa taalim muy muy mu fa def mooy def na fa daara alquran mag a mag a mag yoo xam ne juróom-ñetti téeméeri gone ña nga ca yoo xam ne juróom-benni at ak juróom-ñaari at ca lañ ñoom ñëpp ña ngay jàng alquran fi ni nii am na ci ñoo xam ne wàcc nañ biñ tàmbalee léegi wàcc nañ juróom-ñetti téeméeri yoo xam ne moo leen yoroon lépp lépp seeni seeni seeni waajur duñ fa indi paquetu miskit duñ ko fa indi kenn du fa fay dara juróom-ñetti téeméer yëpp moo leen di dundal ñoom ñëpp waaye mu def fa jàngukaayu xam-xam bu ñu noppee ci alxuraan ja jàng majalis majalis jàngu majalis bi nga xam ne moom lañ xamoon bu ñu noppee ci alxuraan ja wala ñeneen ñi nga xam ne noppi nañ ci seen alxuraan ba noppi ñu yóbbu leen foofu leen jàngal moom it ay téeméer nga fa yoo xam ne ñoom it lañ koy jàng muy ñox ñu tax wax enseignement supérieur bi nga xam ne dañ ko daan wuti ca bitim réew dem ba Caire dem ba Madina dem ba Makka dem ba fu ne ñu fay wuti xam-xam boo xam ne ñag enseignement supérieur mu taxawal ko ca foofee ku fa dem da nga gis ay gone yu jàng yoo xam ne fii ak ñaari at danañ génn ay diplôme yoo xam ne ña ngi ko daan wutee Madina wala Makka wala ñu di ko wutee euh, Qahira wala feneen fu dul foofu ña koy jàng fee ca Madiana rek ñu ngay xëyee seen kër di ko jàng Madiana ñaare at ñu génn ay diplôme yoo xam ne dañ daan dugg avion wàcc ci dëkk yu mag yooyu di ko di ko ko di ko jàngi waaye jëmut ca loola mu ne njàngum moom gën mooma itteel moom it njàng mépp ma itteel def naa fee ay jàngukaay waaye njàng mi ci dëkk bi daf maa itteel ni ma itteelee mooy li fi nekk ci njàng sëñ Murtala defoon ko fi sëñ Cheikh Mbacké defoon ko fi ak ay taalibe ay sëriñ yu mag a mag a mag kenn ku ne góorgóorlu def la nga man njàng moomu nañ ko seetaat daal di taxawal benn benn banqaas boo xam ne moom moomu lay toppatoo mboolem école yi ne ci dëkk bi nañ ko toppatoo ba xool lu ci rafet ñu wéyal ko lu ci des ñu mottali ko ba mu ba mu ba mat ñoom ñooñu ma ko dénkoon nag bi ñu ko xoolee dañoo gis ne la manqué mooy lii li manqué mooy wala wala li nga xam ne am na ñu ko daawul def loolu mooy njàngale sëñ Touba sëñ Touba mi nga xam ne moom lañ yaakaar di ko jàngale fa mu feeñee ci àdduna ba fa mu làqoo ci àdduna ci saa la ca dëkk ci diggante bi lépp ñu di ko jàngal sunuy gone ñu di ko màggaale ba buñ màggee xam li ñu am lu mu doon duñ ko dégg rek waaye nag sëñ Tuubaa bi mu ñëwee dafa indi ak taalube dafa andi al muridiya li ñuy wax muridiya yoonu murid yoonu murid mooy li sañ Tuubaa andi ngir musal ñu ñoom it nañ ko jàng ba xam lan mooy yoonu murid ba bu ëllëgee buñ gisee kuy tuddoo murid ñu xam ne kii la wala ku ko doonut ñu xam ne du kii moom ñu dugal ko ci biir programme bi waaye tasawuf bi nga xam ne ci la murid di murit jékki-jékkiwu rek am waaye ci tasawuf sufisme ci lay dund wala ci la ci la soq ko tasawuf boobu it nañ ko jàng ba ba ràññee ko ak lu dul moom ña koy tuddoo te doonuñu ko ak ña koy tuddoo te doon ko moom it buñ màggee mën koo mën koo xàmmee waaye yemuñ foofu sëñ Tuubaa dafa taalif lu bari ci ay xasaayit xasaayit yoo xam ne yii day tagg yonent bi yii day julli ci moom yii day nettali xisaam yii day euh, ak dundam waaye yii itam day wax ci fiq ak tawxiid muy taalif na lu bari loo xam ne ci fiq lay wax ci tawxiid lay wax ci naxu lay wax mu taalif ci loo xam ne lu mat a lu mat a xam la moom it ñu dugalal ko gone yi ci seen ndaw ñu tàmbali koo jàngaale ba bu ñu màggee xam ne kat seen mag ñii kat yéesu ñu mel ne mag mel na mag bu ñuy jàng ci ci adduna bi ak fu mën a doon am nañ mag ñu toll noonu ñoo xam ne def nañ lu mel ni la ñooñu defoon kon ñu di ko jàngale ñoom it màggaale ko ba nga xam ne buñ màggee danañ xam ne am nañ lu lu li ñëpp am am nañ ko lu kenn amul kon ñun ñëpp xam nañ ne bu sëñ Muntaxa bëggee loolu def ko li mu bëgg mooy soññ ñu ñun murit yépp ak jullit yépp ci ñu gën a jublu ci xam-xam jàngal ko doom yu góor yi ak doom yu jigéen yi ñëpp fonk xam-xam dugal seen doom yu góor bàyyi taxawal bi ñuy taxawal ci dëkk bi di dawali sareet di dawali woto di dawal lépp gone jàng rek sëñ Tuubaa nee na gone lu ko waaye def loo lu dul jàng loo ko yàq nga ko mag lu ko waaye def loo lu dul jaamu jaamu loo ko yàlla yàq nga ko kon ñëpp war a xam loolu xam ne sëñ Tuubaa sëñ Muntaxa mi ngi leen di école yi nga xam ne dañ ko doon bañ mu doon arab wala muy tubaab wala muy lu mën a doon lañ ca doon bañ di ko ca ragal dugal nañ ko ca nag léegi bu ñu ko ca dugalee nag kenn duutu am ngant kenn duutu am ngant ne awma fu ma dugal sama doom wala awma fu ma jàngalee sama doom kon te te loolu rek moo doonoon suñu jafe-jafe jafe-jafe yi ñu am yépp ci wàllu économie ci wàllu social ci wàllu gune ñàkk a xam-xam rek ñu ko teg du dara ñàkk xam-xam rek moo ñu teg bu ñu amoon xam-xam rek xam-xam tasaaroo rek mboolem jafe-jafe yépp dañuy gis mu daal di dañ te nit ñee koy dindil seen bopp ndax dañ koo xam kon ñun ñëpp war nañu góor lu ci topp ndigalal sëñ boobu fexe ba li mu wax ci discours am bi mu waxoon ci gannaaw ne dafa bëgg Touba bu ñu demee ñetti téeméeri at ci kan ci ci ci ci ci kanam loolu doy na lool ñetti téeméeri at sori na waaye mu ne bala ñoo àgg foofa ñu toll ni dëkk yu mag yi ne ci lislaam nga xam ne ñoo gën a siiw ci xam-xam ci lislaam ci Qahira di Iraq di di Basara di Kuufa dëkk yu mag yooyu nga xam ne ñëpp xam nañ leen ci lislaam ñu am ay université yoo xam ne junni at am na ko nee na bu ñu demee ñetti téeméer te loolu du ci àgg mukk ndax li ñu tàmbali fii defoon nañu fii ak ña nangami fukki at lañ koy am door a te léegi nii nii nii tàmbale nañ kon la ma waxoon ñetti téeméeri at mën nañoo dem fanweeri at mën nañoo dem ñaar fukki at mën nañoo dem fukki at la ma waxoon daal di am te loola loxol yàlla nag te yàlla mën na ko kon murid yëpp dañoo war a fabuwaat ci xam-xam dugalaat seeni doom ku amoon doom bu góor wala nga am doom bu jigéen nga dugal ko muy jàng njàng mu mën a jàng rek te ma am njariñ rek baax na ndax Sëñ Tuubaa du melal jàng mel na njàng du ko melal ci dara Sëñ Tuubaa du wax njàngum diine du wax njàngum adduna am njariñ lay wax njàng mu am njariñ kal aqdi wal fiqhi wa kat tasawufi wa kulli ilmin bi manaafi yafi day wax ne bu ngeen day jàngee jànge leen ñaar yii xam-xam bu lay xamal sa borom xam noo koy jaamoo te sellal jaamu ka waaye bu ngeen noppee ci loolu nag da ngeen jàng xam-xam bépp bu am njariñ xam-xam bu am njariñ la sëñ Tuubaa di wax bu utile boo xam ne ku ko def mu jariñ la ci àdduna nga jariñu ca waaye nga jariñ ca àdduna it yow it boo ci noppee kon xam-xam boobu la sëñ Tuubaa bëgg ñun ñëpp buñ buñ toppoon bayit yooyu kon bi ñu tardé wala jullit yi wala murit yëpp ci wàllu xam-xam weesu dañ ko bu yàgg ci wàllu yépp nag laa ci wàllu diine ci wàllu adduna kulli ilmin bi manaafi fi bépp xam-xam bu am njariñ rek jàngi leen ko bu am njariñ rek diine kon yàlla yàlla dimbali ñu topp ndigalal sëriñ bi wéyal ko ba fab suñuy doom te topp ga nag mooy ku am doom la nga rëcc woon ci sa bopp nga def ko ci sa doom loolu mooy rëccu waaye boo dee rëcc man ndox li ma li ma jàngut li nga jàngut lépp la te rëccu ko te weesu na def ko ci sa góor def ko sa doom jigéen yàlla yàlla tap dimbale ba ñu wéyal ndigalul sëriñ bi def ko na mu ko diglee bu ko defee danañ am njariñul xam-xam danañ am njariñul ku topp ndigal ku topp ndigal mooy loo def yàlla nangu ko fa fa eh, laa tafalu shay'an bi xeyri isni fal isnu shartun fi qabuli zani xam-xam dafa am njariñ bu ko sëñ bi digle wutoon it waaye bi mu ko diglee nag da ngay boole am xam-xam ak am njariñal ku topp ndigal yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin bismillahi rahmani rahim وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان